problème qui se pose aujourd'hui est que. jafe-jafe bi mooy la ko dalee jàpp amul benn yoon élection si fukk ak ñetti région senegal yi yëpp li ñeel nag élection représentativité yi 2010. ba 2023 ba léegi muy fukk ak ñetti at yoo xam ne renouvelé wu ñu li nga xam ne moom mooy instance su chambre du commerce bu Dakar. équipe bi fi nekk nag anam ba muy yore yëf yi daanaka méngoowul benn yoon ak li nga xam ne moom mooy bëgg-bëgg ngir ñu jotee li nga xam ne mooy émergence ndax ñi ngi ko yore ci par parloo ak ñàkkum ambition boo xam ne fës na lool ci chambre de commerce bu Dakar lu tuuti si ay nit daanaka ñoom ñooy aakimoo lépp bàyyi fa nag li gën a ëpp si ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu économie fii ci Dakar. économique de la région de Dakar.